saafara jafe-jafe ndox yi nga xam ne dëkk bu sell bi di tubaab mi ngi koy jànkonteel saa su nag mairie bu Touba di ci gën a dox ay jéego gannaaw jéego yu am solo yi nga xamante ne bii doxoon na ko ci fi mu ne nii gox yu ci bëri amaat ndox tey jii nag joxewaat na benn pompe ñi nga xamante ne bii ñoo di waa OFOR pour forage bi nga xam ne moo di Rahmatul Ahad ñu mën koo dépanner askan wa fa nekk itam mën a am ndox mu doy mu sell mu ñu mën a jëfandikoo. loolu nag mu amal ko ci teewaayu ñi nga xamante ne bii ñoo di ñenn ci kilifa yi yore fànn googu ci maire bi sëriñ Moustapha Mbacke Moussa mi yore woon nag kàddug sëriñ Abdou Lahad Ka. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu euh, ñu ngi nuyu mbokk yi di sant bu baax di ñëw fii tey di fi teewal maire ci présence su sëriñ Mourtala <coughs> Lo adjoint au di. dalal loi hydraulique yi ma ak euh, Pablo mi nga xam fi euh, Rahmati pour ñu war leen a jébbal pompe bu 75 euh, pour ñu remplacer Rahmatul Ahad bi ndax xam nga foofu dafa faible te ci gannaaw maire wutoon ay armoire ak ay pompe lu toll pomp la ak armoire bu ci nek juroom ben la ak seeni câble li ñu leen di jébal tey nag mm, mooy benn hein, benn armoire ak ben pompe da lañ leen jébal parce que dañoo bëgg rek ndax comme marque yi ñëw ñoo tolo mu doon parce que it rahmatul ahad dañoo seetlu woon ne à chaque fois buñ fa défé pompe day faral di paan mm. légui nak bu amé incompatibilité dana indi problème indi jafé jafé motax ñu né won légui tay maire na woon dañ leen jébbal benn pompe ak benn armoire pour ñu xool parce que foofu day point stratégique boo xam ne ni li muy servir ci dëkk bi bari na. moo tax tey ñu woon leen pour jébbal leen loolu. moom monsieur le maire nag ngir liggéey bi gën a ñoŋ am na sax ay way xereñ yoo xamante ne bii ci wàllu ndox la seen xam-xam ci jëm mu jël leen ngir ñu ànd ak ñoom liggéey bi saa su ñu koy jege di ko xelal waaye di saytu itam liggéey bi bokk na ci ci Ahmadou Bamba mii. Serigne Ahmadou Bamba Mar di ingénieur hydraulicien. ñu jël ma ci mairie bi pour euh, taxaw maire ci lépp lu jëm ci travaux ci côté technique euh, dans le domaine hydraulique donc euh, pompe yi nga xam ne indi nañ ko ak armoire électrique bi pour forage pour forage bi danañ ci ànd incha allah ak waa OFOR Maaw Rahmati ngir def le suivi ndax aussi pour ñu defee installation hydraulique lu mel forage il faut mu am un suivi pour xool. ba xam débit bi normal na pour xool ba xam amul amul suuf bu ci topp ci pomp bi et tout donc dina am benn suivi benn entretien bu ci war a topp boo xam ne danañ ko danañ ko def ànd ceeg waa OFOR ak waa Maaw Rahmati incha allah. gannaaw loolu itam ñi nga xamante ni bii ñoo di waa OFOR rafetlu bu baax taxawaay bi nga xam ne maire bi am na ko ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci wàllu ndox mi ci biir dëkk bu sell bii di Touba. niki noonu itam ñi nga xam ne ñoo di waa Maaw Rahmati ci teewaayu Pape Lo mi nga xam ne moo yore woon seen kàddu. Moustapha Dieng président wu Maaw Rahmati ñëw fii di réceptionné benn pompe soixante quinze ak benn armoire soixante quinze boo xam ne mairie Touba moo ko jox à la disposition wu Maaw ak hydraulique ak Ofor pour ñu changer pompe bi nekk Rahmatul Ahad ndax pompe bi dañu seetlu woon ne pompe bi li muy débité dafa faible. nous ci gërëm bu baax monsieur le maire di signaler aussi que ne commande bi maire def c'est la deuxième fois mu def commande bu mel parce que nous ngi fait ci budget 2021, nous avons Nous avons na commande ay pompes 6 pompes six armoires loolu permis, nañu durant l'année 2023, de vingt trois yëpp amuñu problème pompe de stock kon ren am espoir que l'année aussi ci année 2024 bi problème de stock pompe de stock. kii bi nag opération bi nag dina nekk opération bu am solo ndax Rahmatul Ahad dafa nekk dafa bokk ci forage yi ñuy wax forage stratégique yi ndax non seulement dina may université Cheikhul Khadim ndox mais moom mooy fournir daaru benn partie wu daaru Minam moo koy may ndox benn partie wu daaru Khoudoss Madiana 1 et surtout Xayra 2 ndax Xayra 2 nit ñi seetlu nañ ne depuis longtemps amul ndox. mais incha allah su raxmatu axaat amaatee début bi mu war a am problème yi am xayri deux dana wàññeeku bu baax kon nag vraiment ñi ngi gërëm monsieur le maire di ko sant ci turu Moustapha Dieng président Maaw Rahmati maa ngi ànd ak nag ma fay faal moom mooy représenté direction de l'hydraulique fii ci Touba xam nga hydraulique ak OFOR benn la rek tey jii Bambassade daa am empêchement loo tax monsieur ma fay faal moom moo fi ñëw pour représenter en même temps Bambassade taxawaale fi waa direction de l'hydraulique ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. du nekk rek loo xam ne guléet la gannaaw jéego yi nga xamante ne bii daana ko def ci wàllu ndox mi mu defati tey lu ni mel waaye saana saa itam mu fas yéene nag lépp loo xam ne ndox mi dañu koy soxla ci ay jumtuwaay ñu koy jënd di ko bàyyi fii ci mairie bi ngir bépp gàllankoor bu ñu am rek ñu mën leen a joyantiwaat